subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin comme ni ngeen ko déggee léegi muy si mbokk mi nga xam ne moo fi bàyyikoo te ki nga xam na a taxawaayam ci yoonu mu ak ak ay góom xëy na bu jotaay bi xate yi itam ñu bàyyi xel ci buñ demee kon kenn ku ne fa nga toog mën nga koo jàngal bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon defal ko ñeent fukki lixlaas ak benn defal ko ayatul kursi yéene ko yool be ko mboolem jullit ñi nga xam ne ñoo jiite itam